Madi Touré bu mu njëkk a ñëw ak programme am bi nga xamante ni juróom-ñaari poñ la ko tënk jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi ci diwaanu Njaareem. mooy les infrastructures ñeenteelu point euh, ñeenteelu euh, point bi c'est le football féminin juróom benn bi mooy euh, accord quadripartite fédération collectivité locale état ak FIFA pour terminer nag beneen bi mooy. politique social benn bés lañ ci teg président sortant bi Augustin Senghor wàcc ci njaareem moom li mu yor ci bagaasam benn film boo xam ne ni da ciy wone li nga xam ne def na ko ci sport bi ak li mu nam ma def ñeenti at yi di ñëw. ñëw wax leen déjà li nga xam ne moom lañ la dënkoon lan nga ci liggéey donc démarche boobu moo ñu yitteeloon tey ñu ñëw fii gis ngeen ko ñu présenté leen benn film bilan boo xam ne wane na ci gàttal parce que film yi mënul gudd noonu lépp li nga xam ne gis nañu ci ngëneel li ñu def ci ci suñu mandat bi. appui ñuy wax tamit lan mooy ñëw ëllëg li ñuy am séntu def euh, dans le dans le futur. cappaandaw ga nag club bu Diourbel yi ak ligue régionale de football li ci ëpp tànn ne dañuy jàppale Augustin Senghor. exil Diourbel am na fukki club ak juróom-ñaar am na nag 4 à 5 yoo xam ne ni décidé guñ ñoom ñoo li de motion bi pour d' ci conscience bi nga xam ne nii am na ab commission bu jóg dox ko ba ñi xamoon dañoo nekkoon candidat ñett yow wëlbatiku ne ànd na ñoom nangu nañ candidat bu ñu jiital ñu nangu ko ñu nangu mu tomb ci candidature euh, Augustin Senghor. ñu jàpp rek ne ñaari délégation yëpp. ni ñu leen tertoo am na solo fii ci diwaanu Ndiarème.